salaamaaleykum mbokku internet 24 actu ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax di ak yéen saa su nekk comme nuñ ko taamu rek di leen ko defalee la fête s'annonce te boo gisee rek astuce yi nga ne 14 février c'est pour koo xamante da nga am valentin wala nga am valentine euh, fête bi sa fee la ndaxte dégg naa leen li ma leen ko waxee mbëggeel dafa neex dafa jaadu rek ñu di ko feete saa su nekk ba tax rek fépp foo xam dafa am ay astuce yu am am solo rek jëm ci boobu la fête ndaxte nag suñu alaaji yi dañ leen war di bégal nag même rek soxna yi bi leen war di bégal looloo tax rek ñu daal di ñëw xoolal leen li nga xamante ni moo gën a fës rek euh, ci biir fête boobu lee moo tax rek ñu daal ci ànd ak nag ah boo xoolee fii nga xam ne bi ci bi yaa ñu ne de maam Thierno waaw fay naa sa waa ci loo nekk man day jóob laa tudd nga sànq ni ma ko waxee ci ndoxte la fête s'annonce te buñ ne 14 février dinañ wax li nga xamante ni moo di ay pétales de rose ak yu ni mel ñu bëggoon nga wax ñu rek fet bi naka lañ ko war a mën a dundalee waaw 14 février bi moom xam nga kenn ku ne am nga sa Valentine wala sa Valentin. Mhm. waaw nga defar ba mu baax. Mhm. def sa bagage yu baax yaa ma gën a xam xam nga góor moom dañ koy bégal ndax xale la. waa la ñuy proposé tey jii comme astuce lan war a mën a pour suñu alaaji yi kontaan. utiliser comme gis nga ngegenaay mhm. yi xam nga dafa rafet tamit. waaw nga kii lii lépp ay vees la. gis nga yii yëpp loo doxal waaw dafay tàkk. waaw dafa rafet trop macha allah. waa am na bu la neex couleur bu la neex lay def. gis bii tamit gis na bii li muy génnee nii xam nga bii rafet na loof bii gis nga yii yëpp moom tamit gis nga bii xam nga bii moom ëpp na na tubaabee ëpp na maa la loolu waaye gis nga fleur yii yëpp moom la xool gis dafa rafet macha allah yii yëpp day bégal góor ñi yaa ma na xam xam nga lii rek boo ko sànnee rek ci sa drap bu weex sa bu weex mhm. teg def ba mu baax yaa ma na a xam sànni yëpp fleur yi am na xeet bi mhm. am na kado bi gis nga mhm. wala kado bi rek yow rek génne ko génne sa benn kado rek teg xam nga day neexar affaire bi waaw jigéen day xajam <laughs> di <laughs> def sa yu mhm. mhm. ah, jigéen ñi yëpp ñu ngi leen ci woo gis nga bii xool nga. xam nga bii amatu waa reflété bu la neex lay génne lu la neex mhm. loolu lay de ñu ngi leen ci woo yen ñëpp daal. mais li ma gën a bëgg gisaguma ko de man ma bëgg xet gu neex cuuraay ak ànd yoo xamante ne nii yu doy yi. ana yooyu. dee xool nga ànd yi yëpp ay ànd charbon la gis nga da def rek sa cuuraay. yëpp moom la yëpp gis na façon nga cuuraay bi na waar sarxataan la gis nga ko waaw mhm. ah, waaw sarxataan bi daala ne neex na torop masha allah am na digijee am na goowe yëpp a ngi fi surtout jamono ji nga xam ne jamonoy sedd la day neex néeg dafa war a xeeñ neex mhm. gis nga bii cuuraay bi pour suuru la affaire yooyu yaa ma gis nga fer bi tamit mhm. per bi moom neex na torop. da nga koy teg noonu rek da ngay teg rek muy xeeñ. waaw mm-hmm. gis nga per yi cristal baa ngi nii cristal bu saw bi pour ñi nga xam ne waaw bu saw bi moo leen gënal. waaw gis nga boobu moom dégg naa ne tamit nee nañ per tamit dafa am lu muy wax de. ah yow tamit ngi am na lu muy wax de. Ah, baax na ci de ah yii ah. ëpp na gis nga bii. waaw bu di ci bi moo nekk nii waaw bu di ci bi tamit macha allah. préférence am ñu tànn am ñu tànn waaw ñu dañuy bëgg bu sew bi ñuy bëgg bu dijj bi kenn ku ne daal ak li la li daaneel sa góor <laughs> ak li lay la daal mm-hmm. waaw parfum yi gis nga yëpp mm-hmm. xeetu parfum yaa ngi nii gis nga mm-hmm. yëpp parfum yi neex am nañ fi yeneen bagage yu baax nag yo daa mel gis naa fi ëf tey nga tamit ëf tey nga baa moom am na solo moom d'après d'après ñu koy dégg ñu koy wax <laughs> ëf tee ngaa ngi nii maam Thierno. dëkk yu baax tamit nag. waa waa ñu leeralal tuuti rek pour ñi nga xamante ni bëgg nañ ko utiliser te ko. <laughs> eh amul seeral. gis nga moom yaa ma gën a xam gis nga kii moom. likitam la àndal da ngay jël likit bi rek def ko ci. soo la neexee tamit am na ñoo xam ne dañuy def seen mante nga mm-hmm. defal sa mant bopp tamit nga def ci yaa xam nga fa nga koy teg. te gorge nga koy dugal rek foofa toj. <laughs> loolu képp ku ci bëgg a am lu leer da ngay ñëw rek seet si ko moom mu daal lay wax ëf tenga bi naka lañ koy utiliser ndaxte nee nañ la am na ci yoo xamante ni kenn mënu si koo wax ne ñoo ngi ci biir waaw am nañ ay cepp yu ñu mocc ak bagage yi mhm. kii ya daal mhm. yëpp a ngi ci biir daal mais képp ku ñëw daal li nga li ku ñëw daal lépp li nga bëgg rek tey da ngeen leen conseil la lañ koy utiliser conseil la mhm. gunge la lépp daal léppay baax waaw pétard de rose yëpp a fi mhm. yëpp a fi nekk lépp loo xam ne lu ñuy utiliser la ci Saint-Valentin bi rek yëpp mu ngi fi mhm. mais naka ngeen ko dundee par rapport ak daaw bi nga xamante ni Covid amul ren ñu gis ne feebar bi am na activité yu bëri daal di taxaw naka ngeen koy dundee waa ren moom vraiment liggéey bi xaw naa taxaw tuuti parce que xam nga rek mhm. kii yi dara doxul euh, ñu taxaw bari mu dem bi demeetul noonu liggéey bi tamit demeetul noonu ren moom vraiment xaw naa kii moom. par rapport ak démb mais gars yi ñu ngi ñëw comme ni ñu doon ñëwee. ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw mais xam nga rek xaalis amul dañu ñëw rek pour bégal góor ñi lu mënta ñàkk la rek mais. xaalis bi mooy loolu. ñu nekk Saint-Valentin daal di tam tombeek sedd tombeek tamit couvre-feu yaakaar naa ne wuto a yomb ci xale yi. du yomb du yomb parce que couvre-feu la nit ñi dañuy teel a tëdd yaa am nga a xam kenn ku ne mën ngaa teel a xëcc sa Valentin daal. <laughs> yaa <laughs> foofa ne. <laughs> d'accord man Thierno gis ngeen ni ma leen ko waxee mi ngi nii gis ngeen ni ma yor ni ku ko gis xam ne lii dafa rafet lool ci ndiggu jigéen te gis nañu ko ni mu ko waxee sànq am nañ ci ay cuuraay ay parfum de chambre yëpp am na képp ku bëgg a bëgg rek sa Valentin wala sa Valentin pas góor ñi tamit daal di ñëw jëndal seen soxna yi ah. pourquoi pas tamit dañoo war a ñëw defal ba mu baax ñoom tamit parce que ci lañ bokk dafay neexal sëy bi daal. Uh-huh. sëy moom xam nga kenn li koy neexal kenn ku ne dangay jàpp fii sa morom jàpp fee rek affaire yi daal di neex. wan ma góoy koo bëgg. moom macha allah xam nga dafa neex moom góoy moom. Uh-huh. xoolo bi bu dijji la gooyo bu dijji hmm. boo ko taalee la muy xeeñ rek bay say pidi laa la wax waaw <laughs> ma ko bañ mm-hmm. bi moom defe naa yombul moom ah, bii moom yombut suñu waaw <laughs> d'accord merci kontaan nañ bu baax a baax ñu bàyyi la rek li nga xamante moom ngay tàggoo ak lan ngay wax client yi waaw maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp nag di leen sant waaw di wax sama client yëpp daal maa ngi leen di woo ci Saint-Valentin bi yéen ñëpp ngeen ñëw defar ba mu baax bégal góor ñi na kër gi neex cuuraay li gilli fii dëgg neexul alors ces internautes comme niñ ko baaxee rek di ànd ak yéen lépp loo xamante ni da di événement dañ ciy ànd ak yéen ci astuce bu manti doon gis ne ni ñu ko waxee sànq Saint-Valentin la ñuy waajal c'est pour bientôt képp koo xamante ni rek yaa ngi ko bëgg a préparer ndaxte amour dañ ko war a feete tout le temps di rek lañ leen indi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf